asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ah ñoo ngi nuyu fi teew ñëpp di leen ziar di leen baalu àq di leen balaax ah, di leen ndokkeelati ci weer wi ah man kat ma ma ma ma ñaxtu ndax bu question yi xawee saf rek ñu ne capitaine ah daara ji du noonu nag daara ji du noonu de. bu ma grévé ngeen am problème de waaye ah, yàlla baax na yàlla baax na ah sant yàlla sant yàlla ah ndax am na loo xam ni ñi ko war a waxtaanee waxtaane ko ca barab bañ ko war a waxtaane ci jamono bañ ko war a waxtaane loolu rek doy na sant yàlla xam nga sax ci lay ñëw ci sànq bi ñuy expliquer nodd gi ay ree daf ma xaw a jàpp ndax xëy na niñ ko indee am na solo waaye dafa mel ni bal bi dal na AC 130 du mooy ndax nodd maa ngi ciy tooñ sama mbokk bi sànq ba maa ngi parier sax ne ko boo ko boo ko déchiffré ma ma am lu ma la jox waaye man sax maa ngi xool est-ce que firi gi duma fayee ko ba pare soog koy wax waaye comme eh, eh, ay ndongo daara lañ ñun ñëpp ñoo far kon ñu bokk ko rek na xam nga bu ñu nee allahu akbar allahu akbar yàlla moo kawe yàlla moo màgg ashhadu an laa ilaha illallah xippil say bët te dajeeg dëgg xippil say bët te dajeeg dëgg mais xam nga ñu bëri liñ dul comprendre mooy ñaari ashhadu an laa ilaha illallah la ñuy tudd ñaari ashhadu anna muhammadan rasulallah la mais ay peer la ce qui fait boo indee premier ashhadu laa ilaha illallah bi foog nga peer ko ak premier ashhadu anna muhammadan rasulullah bi ce qui fait pour dégg ko lan la xippil say bët te day ak boroom dëgg te seedeel ni jox na ko kam ko war a jox mu indil la dëgg gi booluy première paire bi deuxième paire bi ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xoolal seedeel ni kii nga amal affaire mooy boroom ngëneel te indil na la ki nga xam ni moo mën a fexe ba nga jëriñoo ngëneel la xëyya ala salaa kaay leen wuyu ma ci leen di jëriñ xëyya alal falaa ndax mu mën a jur ci yéen lu leen di saxal allahu akbar allahu akbar yàlla yaatu yàlla tabe laa ilaha illallah kenn du moom kon nag ci biir loolu barke kilifa rek